kii daa am jabet déglul da am mbokk mu am jabet mbokk yi maa ngi sàkku ci lu wér ñu dimbale ma vidéo bii may bëgg a maye yaakaar naa néewaane nga dox ci internet ba dégg ko ne la kaay ma may la ko te maa ngi koy seedal yàlla alal ju bari laa ci laaj pour fajal ko nit waxuma calmer ko de faj laa wax faj carrément ci jën boppam ku si jot dimbale ma nga tasaare ko nga jëmmi sëñ Tuubaa Jabat sonal na sunuy mam sonal na sunuy yaay sonal na sunuy bay waaye sonal na sunuy rak sonal na sunuy mak dama la ko ñaan yow mi amé jabat deglu ma bu baax baax ci carton yalla li boko jëfëndiko sa jabat dañ ba set fu dar kasse xop ki bi eh, xas mom ngay wut waxuma xop bi de xas ngay fexé am sunguf bi yow mi amé jabat ar soo kondu nescafé bi wut ci leen a nga naan da ngay tang ndox bam tang rek nga def ci naan bu do neexee sax boko mané mënee nga maq ko nonu mu gënati bo añee bo nopp nga defaat ko bu la neexee nga boole koog loy lek euh, mo xam ceeb la wala lu mëna doon laax la lepp bu mané doom xétu laax ni moy li gën ndax xam nga ceeb mom kiimaan la ak jabet la yalla xam dañ ndax dafa bari sukkar bo reeree bo noppi nga defaat ci carte ni yalla man Abdou Khadir maa la ko wax boo ko 15 jours bu la nexé nga dem xoolaat sa suukar incha allah yow mi jot vidéo bi tasaare ko lepp lay wut ci aduna yalla nako yalla ko ci barke alcorane ci jamono bi ko defee mbokk yi jotaay jariñu ak jariña lañ wax kon na yaa jariñu gi moy nga gis deg gem def mu jariñ la naka ngay jariñee mooy nga jot ci tasaare ko ba say moroom jot ci kon na tas